Hmm. ma waxati leen rek kii nag bitim réew la nekk ñëw da jëkk xale bu jigéen di bëgganteeg moom kooku nag yàlla def ñu nekk di génn xale bi xamal ko ne ko yow la yow laa bëgg te yow laa bëgg sëyal ñu dem ba ca biir papay xale bi gaañu ah comme moom papam papa la ko daan woowe mu ne ku góor kii man de papa laa ndax bëgg ga mu ko bëgg ku góor ki nag yor yërmandeem lool loolu sax ci moom ah daa di takk ko ba mu ko takkee nag moom ak yaayam yépp dañoo ànd bëgg xale bu góor loolu sax yaay ji bëgg ko mu féete ko nag def ko ne doomam ji mu sukk jur ku góor ki jël yaay ji def ko ne yaay ji nga xam ne moo ko jur mu defal ko façon teraanga bu ne waa ji war a voyager avant muy dem utal ñu ko kër bu baax mettre ko à l'aise këram bu ñëwee la toogal doo toog amul lu mu manqué matériel yére takkaay amul dara dara dara loo xam ne manqué na yàlla def it am doom ñu tuddee ko ko ko sori lool mu bëgg ko lool waa ji bi muy dem bàyyee ko téléphone ndax téléphone ba kat ay coordonnées nag yëpp a ngi ci waa ji bi mu demee li ñuy wax surprise rek ak pexe yu jigéen hmm. waa ji àgg gis ay message yu ñëw muy lan whatsapp bu ndaw si mais am na ku muy waxanteel di ko envoyé ay vidéo ay photo mu def taatu neen waa ji loolu choqué ko metti ko ba mu commencé di mel ni ku jaxasoo xelam daawul naan ma ngay naan daawul tux ma ngay tux waa ji bëggoon àdduna lool daan solo yëre yi riche dàll yu baax dem ba benn chemise da koy sol juróomi fan ba chemise ba day tilim kenn xamatul lu muy niru ba ñëpp di poser ci question ci moom waa jooju nee na meer ba fa mu ko teg fa mu ko ak fonk ko ko meer ba fonk moom problème bi mu am kan la ko mën a waxal ndax mënul dem ci yaayu ndaw si di ko ko wax ndax mën na ko ko wax meer bi am cardiaque ndax meer bi nit ku baax na Hmm. léegi nag yéen góor ñi ba tey ma leen di poser di question waaye yéen ngeen yaakaar ni ndaw soosu loolu mu def njaaloo la wala du njaaloo ndax dañuy yaakaar ni kat fii ci suñu réew mii njaaloo mooy ñaar ñu ko séq waaye man dama ne ku dul sa jëkkër gis sa yaramu neen kooku njaaloo la te suñu borom am na lu mu ci waxaa ah, képp ku ko def boo deewee safara nga jëm ba tax na nag ma leen di xamal leen yéen góor ñi dee leen dégg samay ndigal mooy di leen xool fi ngeen teg seen tànk jigéen bu mu wax wax bi nekk wala bëgg sëy yow bu mu jaral ko mu laam-laamee ba tax nga dugg ci di nga màtt sa loxo ca